sant président de la république dinaa mi sant yàlla bu baax sant président de la république mi ñu wóolu euh, dugal ñu ci ñu ànd ko suñu ay nawle les investis notamment madame Mariama Sall doyen Aliou Sylla et les miens euh, mais aussi ñu sant ci beneen mbir mooy mu defal ñu honneur defal ñu de liste defal ñu tête de liste ah, ak population d'abord du département de mais également conseillers municipaux yi département bi yëpp ñi ci jiitu di maire yi ak responsable yëpp mobilisé wu tey wote fii di ci ëpp solo d' abord mooy taux de participation bi cinq pour cent 63 pour cent boo leen defee interroger l'histoire bii mu ëpp bi jàll taux de participation waaye résultat yi li mu wane mooy ci juróomi ak fanweer ak juróom-ñaar yi wote juróomi téeméer ak fukk yëpp. nee nañu li président Macky Sall def neex na leen ñun doo ci doy na leen wote nañu mu des lu néew loo xam ne matul sax ñaar fukki yu teg loolu day wane ne kon choix bi baax na population bi rafetlu nañ ko mais conseil municipaux yi ak départementaux yi yëpp aussi validé nañ ko loolu nag dafa nekk sas bu rëy xam ne war na bëgg nañ ko relever tey ñu jëm di au conseil di fa fas yéene demoon pour toogal fa département de Mbacké le Sénégal ensuite léegi département de Mbacké particulièrement xool li ne ci jafe-jafe yi ne ci gox gox gox yëpp ñu di ko remonter di ci travail ensemble nag ñun li fi nekk ak ñi nga xam ne président war na leen nooy war par décret ñu fekk si ñu ñu war a ànd ñoom liggéey pour l'intérêt du département de incha allah mais également pour euh, avec les maires les responsables et toute la population donc tey mbégte la ñuy yëg mais également damay wax tey moom lañ def mooy fal ñu mais li gën mooy liggéeyal askan bi. ginnaaw ma sant yàlla sant général sant ñëpp bu baax a baax sant képp kuy kilifa di ko sant di ko gërëm sant suñu président Macky Sall di ko ñaanal bu baax a sant suñu directeur général te DG Galabane lépp moom ma delloowaat ko lépp nag. am amuñu fayam lii lépp rek moom la di ko sant di ko gërëm di sant nag conseillers municipaux yëpp ak conseil di sant conseillers yëpp ndaxte ku taxaw fii tey xam na leen bis bi ñor na leen di woo tamit jigéen ñi ndax boo xoolee tey opposition beeg ñëpp ñëpp a ñëw jàppale boo bëgg nag jàppale boobu mu continuer di jàppale président Macky Sall di tàllal loxo tamit jigéen ñi di ndaxte jigéenu département bi ñëpp génn nañ tey leen tàllal loxo di leen topp seen ginnaaw wax ni nag yi ñu am ñoom moom ñoo ko bokk suñu borom may ci ndam lu kawe suñu njort di ñaan yàlla ba nga tas suñu ah, taxawaayu askan wi rek ndax jàpp naa ñu amul lu ñoom ndax li lépp ñoom la nekkal leen fa lépp lu fa wax ñu def ko fa jàpp naa loolu taxawaay. Euh, tey élection bi défi bi moo ne woon tey mobilisation bi ak vote en loolu lañu sàkk woon ci conseil municipal euh, ak yi conseil municipal départemental yi sont mobilisés ñëw tey voté si en masse ba tey Benno Bokk Yaakaar génn euh, victorieuse euh, ci élection yi donc dañuy sant bu baax a baax tous les responsables les maires mais également les sympathisants et tout ce ñëpp képp koo xam ne daal véritablement yaa jàppale Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall coalition bu toll ni coalition Bokk Yaakaar mënul bañ mënul et puis nous en politique nous sommes dans le jeu démocratique ku nekk si ñun day ku nekk si ñun dafay am am lu mu bëgg am lu muy gisee am lu mu xalaat waaye jàpp naa ne ak dina am unité bi am lors de ces élections là parce que dañoo investir amul benn voix discordante amul benn responsable bu taxaw ne man li ñu def ànduma ci te it ñi nga xamante ne ñoo jàppale président bi ñoom ñëpp ñëpp ñoo mobilisé wu ñëw fii tey yendu ak ñun ñu waxtaan kafre donc jàpp naa dynamique boobu dañ koy maintenir pour que ñu mën a continuer ànd nekk ndaxte lii ab solo du du suñu bopp yi ñun ñi suñu suñu jëmm yi mais c'est département de Mbacké moo war a moom la ñu war a yëkkati ci fànn yëpp ay mais surtout sur le plan politique